ñoo nek marché Thiaroye nek fi ak yenen force vif yo xamantene mom lañuy wax collectivité bi nga xamantene moy topato les impacts du terre ñom ñëpp ñu dem ba nemmeeku ne jall mënutu ñoo dem ñoo liggéey parce que terre bi dafa tejj marché bi tejj bo xamante ni kenn mënatu la jógee Tali jallo ñew fi wala nga joggé fi dem Tali jall su fekkente da nga bëgg dem mbedd cinéma fokk nga dem ba fall war ga joggé fall war ga dogay koy demaat te lolu dafa nek problème bo xam dañ ko war régler président dafa ne woon chaque 800 mètres passerelle dina am waaye ku ne xam na ne képp ku dëkk Caaroy xam nga ni boo jugee Fallou Warga ba ni ngay demee ci pont bu bees ba amul fenn foo mën a jéggee dem te li tax mu gën a garaaw mooy infrastructure yi ñu soxla ci Caaroy yëpp loolu boo déggee ma la koy wax ñu dëkkee Caaroy comme sama classe gi ñu ne fii ñëpp moo tax ma koy wax infrastructure yi ñu soxla Caaroy yëpp mi ngi féete côté bi bu fekkente ne danga dëkk fii ci mbedd cinéma sa nga soxla maternité bi mënoo daal di jugee fee ñëw fii maternité bi fi la nekkee gendarmerie bi fi la nekkee marché bi fi la nekkee état civil fi la nekkee école Massaër Diagne fi la nekkee lycée bi fi la nekkee lolou lepp ñu xañ ñu ko pour terre bi te mënuñ ñoo dimbal defaral ñu benn passerelle bo xamné ci lañu mëna jaar pour mëna a fi ñu taxaw ni muy tali 103 ah, ku ne gis na ni mel danaka jëratul kenn jëratul kenn di expliquer route 103 bi nu mel ñëpp gis nañ ko leneen li ci gëna graw te yéen ñëpp ngeen gis ko moy supermarché bi nga xamante ne fa la légume daanaka sa Ndakaar yëpp fa lay wàcc dem ngeen fa gis ngeen la fa nekk te lañ fay wàcc lépp ci biir yi la jëm lañ fay wàcc lépp ci biir la jëm loolu nekk problème boo xam ne kenn xamut noo koy réglé beneen bi nga xamante ne moo ñu gën a métti nag ba gën ñoo métti mooy suñu maire bi nga xam ne moom la ñu dëkkal muy doomu Caaroy ñu juddoondoog moom fii màggandoog moom fi amul benn effort boo xam ne gis nañ ni def na ko ci problème yi ñu am ni beneen ba ci jiitu mooy barki démb dem nañu réunion nañoo moom pendant quatre heures de temps mais neuf problème yi ñu ko tegal yëpp amu ci benn boo xam ne amu ci solution léegi nag ñun décision bi ñu jël te fas ko yéene def te d' accord ceeg collectif Thiaroye ak waa assise association de commercant de l' industrie du Sénégal ak délégué yi fi nekk yëpp lu ñu fas yéene mooy bis tey bis tey jii dootuñu fay benn droit boo xam ne dafay jóge ci ñun jëm ci maire bi loolu dañ koy dakkal bis ni tey lu dul maire bi dafa maire bi dafa dikkaat ci ay devoir am bu dikkaatee ci ay devoir defaral ñu route 103 bii nga xamante ne mooy accès principal bu Thiaroye fexe ba moom même bu fekkee du du du du du du kii APIX ñun mënuñoo wax ak APIX directement mooy suñu relier ci moom lañ mën a dem wax ko suñuy soxla parce que moom mooy autorité ville bi. léegi nag moom dañ koy jox délai bu gàtt ci nu mu gën a gaawee na jël ay matuwaayam fexe passerelle am diggante mbedd cinéma wala gaar ba wàcc si Thiaroye pour nit ñu mën a dem ak di dikk loolu mooy problème bi nga xam ne moo gën a rëy. pour problème mu L'on nous lancer un appel sans délai